kon gis nga ko yàlla wane ne ñoom duñ la fekk si mukk yow tamit doo leen fekki mukk ñoom ñaari kuréel yi tamit kenn du fekk nga nekk mooy dëkk tamit kenn du fekki sa morom ak kenn ku ci nekk sa wujji morom nga yëgoon seen xibla mooy sowu ngir tegtaloo ko ci yonentu yàlla Moussa bi ko yàlla jox ñu ne téere ba ci wàllu sow ca bañ ko ko joxee woon ñu ne ko dafa la barke ne ndax li ne wa maa kunta fi jaanibil garbi nasaraan seen xibla mooy fenku fenku jant bi ñu ne yonentu yàlla Isa bi ko yaayam juree mu judd mu koy indi foofa la bàyyi ko woon waskur fil kitaabi Maryama idh intabazat min ahliha makanan sharqiyyan makaan sarqiya googu ma waral ñoom ñu ne kon foofu fa la mbir ma nekk bu ñuy julli jublu fa waaye yëpp ci seen bànneexu bakkan rek nañ ko teg waaye du ndigal yàlla julit ñi nag ñoom seen jubluwaay mooy kaabatal musarrafa ñoom nag def nañ ko ñu ngi ko defee ci ndigalal yàlla mi ne waxay fu maa kuntum fa walloo wujuhakum shatra kon nak julit ñi ñoo nekk ci dëgg ñële ci seen bànneexu bakkan rek lañ jël di jaamu bokk ci afaraay tamani taxada hawaahu waaye nag bon ak dëngee tax na duñ la fekk ñoom ñaar tamit kenn du fekki sa morom lay woo leen mënoon di indil dagale ko tamit du tax ñu fekk si la ngir dëngee waaye xam yaa nekk ci dëgg yàlla tofal ci ne ini tabaata wallaahi boo topp woon ci nattale ahwaawum seen bànneex ci li lay min baax di maa jaaka gannaaw bi nga xamee dikkal na la minal xel mi ci wax yu bu leer naa nit yi innaka naka yow isan boobale nga toppee leen rek la mina yàlla na xam nga ne yonent bi du ko def ñun lay wax képp ko yàlla wan dëgg nga wéet ca tax nga ne naa ko bàyyi dem fekk lu xumb la donte nekkul dëgg wala su ma nekkee ci lii dañ ma mere wala su ma nekkee ci lii samay mbokk ñoo may dimbale dootu ma dimbaleeti kon naa bàyyi la ma nekkoon dem fekki leen su boobaa tamit te loola nekkul dëgg su boobaa da nga mujj maanaam minal xaalima bokk ci nag bokk ca baaxul ndax danay jural ay lëndëm lëndëm yow mal moo tax mu ne ko allazina mooy ñi nga xam ne aatay naam jox nañ leen mubtada la allazina gaa yi nga xam ne aatay naam jox nañ alkitaaba téere kitaab bi maanaa kutub muy yëgoon ak nasaraan ñu jox téere yi yaarifuunahu xam nañ sayyiduna muhammad ci ay meloom ak ay jikkoom seen téere ñoo leen ko xamal kama yaarifuuna comme nañu xamee ab maanaam ibn abdu salaam ibnu de ba ma ko gisee laa xam ne moom mii laa gën a xam ci sama doom yi ñu ne ko lu tax mu ne sama doom yi góorul ma bi ma wanee gannaaw sama soxna yi def nañ naka sa doon doon ak geneen góor waaye comme ci sëy lañ juddoo rek ñu askanee ma ko waaye nag xóorul ma loolu wala déet waaye yonentu moom ba ma ne ko càkk laa xam ne waa jii lañ ñu doon jàngal ay meloon ci tawreet moom la ñu jàngal ay meloon ci liñ ji kon moom laa gën a xam ci samay doom aka yelante iya woon kàddu gu dëgg googu ya. mu wax ta bokku ca gaaya mu yëgoo di mbooleem ñom ñooñu tamit ñi wax ko ni ko danañ am mucc ko mom ni amé mucc waaye nak ngeen ya ngeen jox ak addiye ya ak dara ja ji mo leen gënal lool bu léegi tamit ñu ñu doon ci bañ fàtte ne mos nañoo bind ci kaw suuf yalla ne wa inna fariqan nako naka kuréel bi noonu la yakatu la yekkatu ñu nebb al haqq melo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in wa hum te ñoom nag yàlla mu ne xam nañ ne yonent bi lii mu nekk alxaq mooy dëgg bi sax mi nabi ko ku bàyyi ko sama waaye di wér te nag wér ci tax mu nga sikk falaa takku nan na bul nekk yow yonent yàlla muhammad minal mumtari na bokku ca way sikki ña sëñ daara Cheikh Modou mën a noonu moo gën a balaaxa maanaam laa tamtari bul sikk bul bokk ca ñu way ña moo gën a foor bul sikki moo tax war ko ne ko bul sikk de dafa ne bul bokk ca way ña loolu laa gën a xam balaaxa ci ci nasaraan tabaarakallaahu ci jullit ñi ku mu ci ñoom wijhatun am nga xibla goo xam ne woo moom mu walliyaa aji jublu la ko buy julli yahood yi am nañ seen xiblaay bopp wax naa la ko mooy maxrib nasaraan yi am nañ seen xiblaay bopp mooy mashriq jullit ñi am nañ seen xiblaay bopp muy kaabatul musharrafa ñoom rek nag ñoo ko defee ci ndigal ñu ne seen bànneexu bakkan lañ topp yàlla nag ne ku mu ci ñetti kuréel yi am nga sa xiblaay bopp waaye nekk fi di puukare woo say xibla amul solo li fi nekk mooy fastabiqoo njëkkalante leen xayraat ci def ay yiw dem leen ngeen njëkkalante ci topp yàlla rek ay na maa takkoonoo di nekk yaa ci dana andi bi comme ci yéen allahu yàlla jami'an mbir moomu mboole leen ci mel noonu pénce fay leen jëf kon nag dem leen ngeen njëkkalante ci lu baax bañ fee nekk di puukare woo ay xibla maa la magle maa la gën le maa maa la gën a juble amul njëriñ inna laa naka a xadiroon aji xattan la alaa kulli shay'in ci lépp lëf de te loola bokk na ca rey leen dekkil leen dagane leen ci mel na penti fay leen léegi nag li mu doon wax naan waaye suma kuntum yëpp ci teewaay la bii muy bëgg a wax nag mooy boo nekk ci tukki yow mi nekk ci sa dëkk bi booy julli wala nga nekk ci dëkk jullil nga dàkk kaabatul musharrafa léegi nag boo nekkee ci ci àll nag moom lay wax si moo tax mu ne wa min xay wa xaraj foofu génnee yow yonent fa walli na nga jubale wajal ka sa cëlmaay satral masjid fa na jàkka ji alxaram ba de bu ñu xormaal wa innahu naka jublu kaabatul musarafa ci julli lal xaqu mooy dëgg gu sax min na dëkk gu bàyyi ko safar wa man laahu nit yàlla bi xaafilin muy aji ngir sàggan amma taxmaluna walis li nga xam ne yeneen koy def dana leen ko fay ëllëg kon boo nekkee ci tukki may nañ la booy julli nga jublu kaabatul musarafa waaye nag taxsiisal nañ la génne ca bu fekkee julleeg dagan na nga julli ko ci sa kaw daaba foo ko julli rek baax na yonent bi julli na naafila ci kaw daabaam te boobaa ba ko julli jullitul kaabatul mu sax soo nekkee ci tukki na nga gëlëm xameewuloo kaaba ga xamoo ko la ko xamal waxoon naa la ko ca kanam da ngay tànn ci ñeenti côté yi nga tànn ci benn côté julli ci ñenn nga ne déedéet jullil ci ñeenti côté yi benn ku ne benn benn julli su wëllëgee te gisee ku la xamal nga baamuwaat ko ca waxtu loolu nag mën naa yóbbuwaale ko wàcc ci aéroport boo xam ne bu réewum julit bi nga wàccee xam nga fu kaaba nga féete amee woo montor bu am bu sa bu sa wala am sajaada bu ko am wala portable ko am te amoo su boobaa tam na ci ñeenti côté rek nga julli ci benn su boobaa dana dudd ndax foofa jublu rek ci ndigalal yàlla nga ko defee léegi mu doxal ci ne wa min haysu xarajta waxoon na ko waaye dafa am lu mu ci bëgg a ataf wa min haysu xarajta foofu mën di génnee yow yonantu bi ci fa walli na nga jubale wajhaka sa cëlmaayu sataral maskini fa wàll jàkka ja alxaraam ba de bu ñu xormaal lu mu ci bëgg a toxal nag mooy ñun waaye su maa kuntum fu ngeen man di nekk yéen tamit ci tukki yéen jullit ñi fa walloon na ngeen jubale wujuhakum seen cëlmaayu satarahu fa wàllu jàkka ja li allah yekkoon na ngir bañ a nekkati li naa maanaam li naa si ñeel yi ak musrikuuna yi ak nasaraan yi buñ aleykum ci yéen xujjatun lay ah ina defin dara ñu nga xam ne xam nga mooy ñoom tooñ ci dëngee mbirum ca ñoom ñoom du ñàkk lay ndax loolu leen indil lay tamit maanaam ñu indi la lay waaye nag ñooña falaa taxshawhum bu leen leen ragal waxshaw ni ragal leen ma man yàlla ci def sama ndigal wala utimma ngir naa mën a mottali ni'mati sama xéewal alaykum ci yéen wala alakum mbastale yéen tahtaduna ngeen mën a gindee bu teg ci yoonu yoonu dëgg yoonu saatal mustaqim te loolu laa bëgg ngir ma mën a mottali sama xéewal ci yéen kama arsalna comme ni may yónnee fiikum ci yéen rasulan ndaw min ku mu bokk ci yéen nekk nit nekk ab arab yat loo ko dana jàngatal aleykum ci yéen ayatina suñu aaya di alquran wa yusakkihim ndaw wa yusakkikum ndaw loo xam ne dana mu laabal leen ci bokkaale ndaw loo xam ne wa yuallimukum dana mu xamal leen alkitaaba téere ba di alquran wala xikmata ak xattee ca nekk ndaw loo na ko lay ñant la woon yahudi amcanya, am ca ñaar nasaraan am ca ñaar musriko ne ñoom toppandoo rek moo tax mu tuddaale leen ci yaa yahudi sen lay mo ne won yonantoo ngi ni bokkam ñun qibla wuté ñun diiné man ta ne kon suñ diiné ji dëgg la ñun la bañ rek légui nak lay woow moom dàppal bokk tudd ñoom qibla ni moom mooy musala kon bokk tudd ñoom diiné bokut ak ñoom diine bokut ak ñoom xibla kon lay daanu legi nak nasaran ya de mom mi ngi ni wax ne dañ ko yonni ci diine suñu maam ibrahim mu ak yonante yalla ibrahim ak xibla woowa tibi dàqu nak parce que mi ngi ni mo ibrahim ñoko bokk benn kitla muy kaabatul musarafa legi nak ñom ñaar kenn ku nekk dese benn foraatu jël gannaaw bi nga daalé yowoon yi ne dara taxul mu ak ñun xibla lu dul bañ ba rek nasaraan ya ne yonent bi daal dafa nekk ci ngëlmane rek tey mu ne lii ëllëg mu ne lële loolu nag jël la fra ku ñàkk jox nag loo ko daan daan daan da koy daan ba pare toog ca mu ne wàcc ma maa la daan wàcc ma maa la daan waaye wàcc ma yaa moo góor loolu la yonent bi defal yàlla dafal ca ne fazkuruni tudd leen ma ci julli ak mu dul julli askurkum ma fay dem faskuroo ne tudd leen ma ci julli ak lu dul julli askurkum ma tudd leen ngir xadisul kursi ba yàlla wax ne sama jaam bu ma tuddee ci wéetaay ma tudd ko ci wéetaay sama jaam bu ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mi ma tuddee ñu ne ah mbooloo yëpp mbooloo xeetu yonantu bi moo ci gën bi kon boo tuddee yàlla ci biir xeetu yonantu bi wala nga tuddee ko fi yonantu bi toogee fu yàlla ay amaatee beneen mbooloo moo xam ne moo gën mooma ñu ne ak ah kañ mbooloo mu ne ma ngay teddee ci ka ko jiite yàlla bu jiitee ay malaaka ci xadaraam ba tudd la foofa muy gën a foor nag jotaay boo xam ne mu jotaay bu nekk ka ko jiite rek te lay mooy mu waxaat tamit ne ku ma tudd ci weetaay mu tudd ci weetaay ku ma tudd ci mbooloo mu tudd la ci mbooloo muy xadis bu naqaree dégg Cheikh dañ ko laajee mu ne li muy tekki mooy ku ma tudd ci weetaay man yàlla dinaa la defal xéewal boo xam ne yaa koy yëg ci sa bopp boo ko waxut ko da nga koy sa da ko xam ci sa bopp waaye boo xamul du ko xam boo ko yëgul du ko yëg boo ma tuddee nag ci mbooloo man yàlla dinaa la def xéewal boo xam ne ku la xam-xam laa moom muy ngoo xam ne ku xam rek bëtam tege bu donte waxoo ko kenn kon gis nga waxi yàlla dafa ko mën a dégg kon baraada la buy wax ci kaw taal bi fokk ñu am góori yàlla yoo xam ne ñooñu koy teggil maanaam seddalal ñu ko bañ mën koo naan ci kaas waaye boo toogee fële rek ne alquran hadis te yow déggoo alquran déggoo hadis da ngay réer rek demal dégg jëlal sa nopp yi déggale ko ñu dégg alquran ak xadis kon doo am problème kon di nga ko tudd leen ma man yàlla ma fay tudd leen ma ci mbooloo ma tudd leen ci mbooloo ma gën ngeen ma tuddee gis nga tudd yàlla doo am problème xeeti jaamu yàlla yépp am na lim xeeti jaamu yàlla yépp am na jamono bu ñu koy war def xeeti jaamu yàlla yépp am na melokaan bu ñu koy a defee loo gën a tuddee yàlla mu gën a bëri yàlla gën a kontaan moo tax mu dafa kuró laa dikkaram kasiram lu bëri ci moom la wax lu bëri ci ñun lu bari ci yalla kenn xamul mu ton kon gis nga julli amna li julli ñeenti rakka rek la mëna a wala muy ñett rakka wala muy ñaari rakka julli mënul pass moom buy bis ñett la buy buy buy buy buy buy manam suba ñaar la bu dul ñoom ñaar la ñett ñent la muy tusuba takkusaan ngay kon xam na lay gis nga timit la weeru koor am na lim xool mënul passé ñaar fukki fa juróom-ñeent wala weer muy fan weeri fan moo alquran ne ayyaama ma'duuda gis nga timit joxe asaka amna lim nga am nisaab ba mat nga natt maanaam bu fukkeel ba bu nekk mooy natt fukkeel ba nga joxe ko su ko defee juróom-ñeent yi nga mun ko kon am lim waaye gis na ko tamit orom lay xaj màkk lim yaa ngi war kaaba ga lim lan juróom-ñaari yoon dox safa ak marwa juróom-ñaari yoon ya am na juróom yoon ca aqaba ca wusta yëpp ci nekk juróom-ñaari yoon ngay kon lim la waaye tudd yàlla amul lim yàlla dafa tudd leen mën a bëri rek dikkaral du ci kenn dafa xam lan comportement julli ben nga taxaw wala nga ruko wala nga sujud wala nga wala nga tok boy julli tamit taxaw nga mala def soko ko nga taxaw wéeru soko ko nga tok ñak wéeru soko ko nga tok wéeru soko ko mënul day jor wala chamoy wala jaaxal kon moy melo kan tuddu yalla nak amul lola so tuddé yalla taxaw yalla fay nga tuddé yalla tok yalla fay nga tuddé yalla di dox yalla fay nga tuddé yalla jotté ci soxna yalla fay ndax dafa rek alladina yaqulu allaha qiyamatan wa quudan wa ala junubi kon no defé yalla fay kon gis nga tamit bu fekkee weeru koor am na melo melo mooy bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jote bu dee xor weeru koor maanaam joxe asaka am na melo melo mooy ñu ki rek joxe su fekkee tamit xor ak ma kala am na melo mooy rafle ko ci lépp lu ñam yow mi góor te rag laa yow bi ràbb bi nga maanaam làmbaayoo ko di wër kaaba ga di baagante ci diggante safa ak marwa di sànni ay xeer taxaw arafa dem musdalifa lii rek mooy ba mooy màkka waaye gis nga ko tamit buy tudd yàlla moo xam loola noo defee rek tudd yàlla yàlla fay moo tax mu ne alal tool ak waxtu jaamu na waxtu jamono julli dafa am waxtu heure bii du subaa nga taxul ku bëgg a am waxtu foog weer wi ak ak màkka dafa am waxtu jamono al-hajju ashhurun ma'luumaat joxe asaka tamit dafa am waxtu wa ñuy bay fa mu ñu buy lu lu dul bay mel ni ay gàtt wala muy xaalis fa mu atal tudd yàlla nag amul waxtu boo tuddee yàlla suba yàlla fay nga tudd yàlla ngoon yàlla fay nga def ko noor nawet jamono bi nekk rek la bëgg ñu koy tudd kon loolu wute ne tudd leen ma man yàlla askurkum ma fay ma tudd leen waaye mu tofal keneen washkuroo na ngeen sant lii ñaan ma waaye walaa takfuroo nii bu leen ma bindi kenn du yàlla gis nga sant yàlla ñaari xaaj sant yàlla jaaree sant ga ci xéewal ku sant xéewal yàlla def sant nga yàlla ndax yàlla jox lekk nga lekk ba suur ne alhamdulilah si at'ama wa ashbaani wa arwaani kon xéewal nga sant yàlla jox la nga sant yàlla jox la dëkkuwaay nga sant yàlla jox la nga sant yu mel noonu war waay lekk waay yu mel noonu kooku sant xéewal ak yàlla sant xéewal yàlla mu la yóbbu ba yóbbu la ci sant yàlla moo tax yàlla wax ne boo lëggee naa leen laaj leen jox ngeen di sant na yow ma itin anin naa leen naa leen ko laaj kon gis nga ko kooku mooy sant yàlla sant xéewal yeneen gi nag mooy sant jëmmi man daal su mel ni yàlla sama bos samay sant xéewal mel ni bu ma joxutoon xéewal xëy yow sant kon man sant gi ma koy sant ki jëmmum ji laa def moo tax gis nga tudd ko dafa ko jël damir ja wéer ko ci boppam muy fas ko rool ñu leen ma gis ma jëmm sant gi nag moo gën a jafe mu jël beneen demi def ko ne waskuroo lii sante leen ma léegi nag mu ngi nam kéewalam dafa jël sant a rëy boole ko digle gi a tuuti sant yàlla dëgg dëgg ca jamono ji lu jafe lii waxul waskuroo nii fii dafa dem faskuroo nii waaye lii la wax kon duñ benn dégg sant yàlla lu xam am la moo ëpp doole sant waaye gis nga walaa takafuroo lii ci moom waxul ne walaa takafuroo lii weddi yàlla ñaari xaaj la weddi xéewal ak yàlla boo ko defee mën na laa yóbbu ci weddi moo tax nag kuy weddi xéewal nga yàlla tam bokkoon seytaane ko wax alquran ne innal mubadhirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura ko fa weddi xéewal ak waaye nag weddi jëmi yàlla ji mooy ne yàlla nangam su boobaa weddi génn nga ci diine ji moo tax weddi xéewal ak yàlla mën na laa jural mu gën waaye ci diine ji ci moom moo tax mu ne walaa takk furoo nii bu leen ma weddi waxut walaa takk furoo parce que mën ngaa weddi xéewal mi nekk ci diina ji man mi leen jox xéewal yi su ko weddee moom génn nga ci génn moo tax mu ne fas kuroo nii tudd leen ma askon ko ma fay leen waaye wa sukuroo sant leen lii yi ma leen defal de walaa takk furoo nii bu ma weddi man miy joxe xéewal ya tamit bu leen weddi xéewal yi bu weddi man yàlla miy joxe xéewal yi kon nag sant xéewal am na sant borom xéewal am na mooy maanaam weddi xéewal am na weddi borom xéewal am na kon sukkurul ni'mati dafa am sukkurul mun'imi am sukkurul mun'imi moo ëpp doole sukkurul ni'mati waaye tamit kufru ñaar la kufru ni'mati dafa am kufrul mun'imi am saa yoo weddee boo defee kufrul mun'imi jënd nga ci diine ji boo ne kufrul am nga bàkkaar bu rëy rëy yàlla sant la jox la lek ba sa be fess ga nga nga fëgg ko sant ko la neex bay fi yàlla su boobaa fu neexmati moom gën kon nag nañu teg baaraam bi foofu moo tax mu ne ya ayuha alladina yéen ya gaa yi nga xamne ne amanoo nañu alquran istaxinoo di len dimbali ko ci seen mbir yeb bi sabri ci muñ wa salati ak julli inna laa naka yàlla maa sabirina ànd ko yi muñ ci ndimbalam de ndax ci mujj ni mu xanteeg yàlla keneen da koo xante wut ak moom moo tax tamit yàlla xant ak moom waaye yàlla moom ñëpp la xant ak waaye dëgg dëgg nag ci firnde la xant ak yàlla mooy koo xam ne wax nañ ko ay kàddu yu ko naqari mu mën koo tontu am fu mu ko tontu wala ñu xëy rek journal yi génnee ci moom kàddu yu ñaaw bind ko mu mën a delloo tontu mu ne muñ naa ko tey yàlla tax comme ni ma wanee kàddu yi wala ñu am lu ko def ci alalam wala ci jabotam mu am kartanu man ko fayu mu ne muñ na ko tayal yàlla tax kon delo gim delo yalla ci bopam ngir mitit bi ko gar ci jëmmam wala ci ay kaddu yu mu deg wala ci alalam wala ci jabotam motax timit yalla and ak xam nga nit ki man na and ak yalla ta yalla du and ak mom yalla yu ak mom rek dara nak ba ca gën a neex gën ca ëpp doole mooy yàlla ànd ak yow nga ànd ak yow loolu nag ku muñ rek moo ko xam boo gisee mu tudd muñ tofal ca julli xeeti jaamu yàlla yëpp ñaar la bu feeñ jaamu yàlla yu nëbbu yëpp muñ a ci ëpp doole moo ci gën a métti xeeti jaamu yàlla yu feeñ yëpp jullee ci ëpp doole ndax ëmb na jaamu yàlla yëpp moom ki yëpp julli ëmb na ko danañ ca yegg ku julli tudd nga baatu seede bi ndax bi ngay liqaam wax nga an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah soo liqaamu kabaar nga xarmal takbiratul ihram muy allahu akbar boo ko farañ fàcce mooy laa ilaha illallah rek ba ngay taay tudd nga baatu seede bi kon tudd nga baatu seede bi ay yoon ci julli boo ko seetee tamit xoor nga xoor du dara lu bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee ci fajal xale fajal du sox bi ngay xoor bi ngay julli lekkoo naanoo jotee woo kon def ko joxe nga asaka asaka mo doon lo yëkkati ci sa alal mu mat sa ci kenn ci ñaar ci xeet ya imam malik lim ci ya ñuy bay ak ya ci aju mu mat sa nga yëkkati ko joxe ko asaka bu dee ci ay kàtt ak bay ñeen fukku la commencé nak fan fanweer bu gëleem juroom nga génne am kat bu dee ci lu ñuy bay ci diggante mbokk meeg dugub jeeg ya ci aju fakk mu mat juroomi dañu wasux te juróom benn ko yu mag tuuti nga yëkkati ko jox ko kenn ci juróom ñetti xeet yi alquran tudd ne innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ba jaayda yow nag génnee nga asaka ju gën a foor alal jox nga ko ñu gën a sakkan gën a yaatu juróom ñetti nit te mooy bi julli ñaan nga jàmm yàlla sotti ko ci mbooleem jaami yàlla yi passé yi teew yi ñëw muy assalamu alayna wa ala ibadillahi salih alal nak limuy neex neex la ko nit ke man alal lo defé fekk jàmm nekk fa fu jamm nekkul kenn du fa alal kon asakay jamm mo ëpp doole asakay alal yow nak ñing ko jox ñoo gëna a juroom ñet nit ñëpp ndax da nga wax wa ala ibadillahi salihin ñi passé ñi tew di and door ak yow ta baax ak ñi ñew sa tan boo ko seetee ni ngay julli ak nga al hajj li muy tekki lugatan al qasd sharan moy al qasd ila baytillahi haram li adaayi faridati al hajj moy jublu néegam yalla ba ngir joxe farata ju ngi tuddé hajj yow ya nag bi ngay julli jublu wa yeb war nga yi gannaaw yi ndeyjoor yi càmmooy dëgmal benn dëkk benn jubluwaay muy kaabatul musarafa di joxe farat bu gën a for xaj te mooy julli wa haythu maa kuntum fawallu wujuhakum shatrahu kon julli dugal na ponk lislaam yépp waaye boo ko seetee tamit xeeti jaamu yàlla yeneen yi sax julli dugal na leen ndax yeneen xeeti jaamu yàlla yi boo ko seetee ci topp yi ci ponk yi am na ci ñu tuddee ay ponk am ci ñu tuddee ay sunna am ci ñu am ci yo xamne dafa laaj dal am ci yo xamne dafa laaj torox am ci yo xamne dafa laaj am ci yo xamne dafa laaj manam noppi am ci yo xamne dafa laaj tamit wax mboolem yoy yëpp bokku nañu dexeñu ci julli ñoo yëpp dexu la ci julli bi nga julli yëpp comportement ba wax yëpp def ko ci biir julli noppi nga wax ta dal nga yëngatu nga lu nga ci jël sa jëb bi nga gëna fonk ne ko rap ci suuf kon non bu ko jëlé ba xeeti jaamu yàlla yëpp jeex moo tax boo seetee yàlla tudd leen ñoom ñaar xeeti jaamu yàlla ay biti jullee ci gën a foor moo ëmb lépp xeeti jaamu yàlla ay biir yi jullee mu ci gën a métti ndax ñu wax la kàddu yoo mën a tontu nga war na ko sa jabar wala sa doom wala sa waajur wala waajur doomam wax ko ko wala ab sëtam mu mën koo faj kanam gën a gaawee war na kàddu ya lu métti ñu defal la luñ jëmee ci sa jëmm nga man koo faj réglé ko léegi nga ne teg dal ne muñ naa ko yàlla tax loolu tamit lu am lu métti métti la moo waral payoor lu am doole la moo tax xeeti jaamu yàlla yëpp ko yàllay fayee ba mooy muñ boo seetee xeeti jaamu yàlla yi ñett lañ dafa am bu laaj ñàkk am bu laaj ñuqi am boo xam ne laajul ñàkk laajul ñuqi lu mel ni julli laajul ñàkk laajul ñuqi juróom ko jaa def lu mel ni yooyu kooku payooram mi ngi commencé ci fukk ba juróom-ñaar téeméer moom la alquran ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha jaamu yàlla nag bu laa ñuqi yëkkati sa alal joxe ci asaka wala ci sarax coobare mi ngi commencé ci juróom-ñaar téeméer ba fa soob yàlla moom la alquran ne masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali xabatin ambatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba waaye nag jaamu yàlla gi nga xam ne waaye nag muñ la laaj kon boo seetee asaka dafa laaj ñuqi gi nga xam ne nag moom da luy dund la mu metti yàlla dafa ne ki muñ ma teg ko nattu ñàkk la feebar la yaakaar ju tas la yaakaar ju yàqu la jafe-jafe ci yaramam la jafe-jafe ci njabootam la mu delloo ma boppam rus naa ëllëg may dajeeg moom di ko peesal naan ko téeméer la ak ñaar téeméer dama koy jox yi woon na doyal naa rek moo tax mu ne innamaa yuwaffa saabirun ajrahum bi xayri hisaab moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla istahinoo da leen dimbali ko ci seen mbir bi sabri ci muñ wa salaatee julli inna laa naka yàlla maa saabirina ànd naa mooy muñ ña de aaya bi tafuti muy wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwaatu bal ahyaa'un mi ngi wàcc ci xare badar ñi ca rayoon ndax jullit ñi 313 lañu woon yéeféer yi mën nañ junne ci à peu près wala ñu ëpp tuuti wala ñu manqué ko tuuti yonentu fa laaj rek ne ñaata gëléem la lekk par bis ñu ne fukk mu ne téeméer bu ne gëléem war na leen a mën a suur kon téeméer junne nit la noonu lañ leen appaparé waaye ci baax yàlla keroog bañ xeexee ñoom rey nañ nit jàpp ci ñoom jaar juróom-ñaar fukk nga des daw ñun nag li ñu rey ci ñun fukk ak ñeent lañ juróom-benn yépp ci muhaajiri ne bokk maanaam juróom-ñett yépp bokk ci waa lansaar ñeneen ña nag dinaa fekk ya taxaw di ñu saboté daal ñi seen bakkan des ci xare bi perte nañ rek bàyyi nañ fi ceeb bi bàyyi nañ fi seen tabax yu baax yi tabaxoon bàyyi nañ fi seen dongama yi wax jooju ñu wax nag yàlla ne delloo leen tontu ne bu leen yaakaar mukk na ñu ñu rey ci xare ba dañoo dee waaye ñoom dañoo dund dañoo taxul rek moo tax mu ne wala taquloo bu leen waxati li man ñaar ja nga xam ne yuqatalu def na rey leen fii sabilillahi ci yàlla bu leen waxati mukk ne am waatun ñoom way dee lañ bal li fi nekk ñoom kay ax yaaw mooy dund lañ de walaakin li fi nekk laa tasxuruuna yéen yéen a xamut te yéen a yëgut ñoom nañuy dundee dee dafa mel ni ku yore caabeeru tukki woon lu tukki ma yàgg-yàgg bu ñëwee day tijji buntam rekk dugg kenn du ko yëg ki dee ci xare tamit noonu la mel bay bakkan bay root rek la ko malaaka tertu dugal ko aljana mu nekk ci xéewal su ko defee tamit am ci ñoo xam ne seen roox ya ñu ko dugal ci ay ndox ndoxi ay njanaaw ñi naaw ak ñoom ci biir tooli dari aljana yi moo tax yonentu baa ngi wax ne bu yowmal qiyaame jamaa allahu alxalaa'iqa naadaa munaadin ayna ahlul fadli qaal fa yaquumu naasu wa hum yasiruuna suraa'an ila aljanna fa talaqaahum almalaaikatu fa yaquluuna inna naraakum suraaxan ilal janna fa man antum qaalu nahnu ahlul fadli fa yaquluun maa kaana fadlukum qaalu kunna idaa xulimnaa sabarnaa wa idaa usiya ilaynaa afawnaa fa yuqaalu lahum udxulul janna fa ni'ma ajrul aamiliin xadis bu gudd la yonent bi nee na bu yowmal qiyaamee yàlla bu dajalee mbooloo xam ma mbindeefam yi ca péncam aji woote dana woote ci ndigalam ne ana borom ngëneel yi am ñu ñu gaaw ci rek deug dëgmal aljanna malaaka yi nga xam ne leen seen waxu tang na de fu ngeen jëm ñu ne aljanna lu ngeen doon ngeen ñun ñoy borom ngëneel yalla ya yàlla yalla laaj ne lu loolu seen ngëneel ba ngeen tax ne yéenay borom ngëneel yi mu ne ko ñun aw nit lañu won yo xamne suñu ñu mosaan na tooñ rek dañuy muñ suñu mosaan na ñaawal jëme ci ñun ñi man ko fay dañuy mujj jéggale yalla ne leen wax ngeen dëgg duggu leen aljanna seen payoor gi nekk na lu reuy mu woote ne ana ñi daan muñ am ñu gaaw waaw jëm aljana malaaka yi gatal waat leen seen waaw xir na fu ngeen jëm ñu ne ñoy ñoy borom ak muñ te liste borom muñ lañ répa lañ lañ lañu lañu rappel léegi te ñun ñu ci biir yalla ne leen lu ngeen doon muñ ñu ne ko ñan de muñ ñetti xaaj la daan nañ muñ ba top la lepp lo mësa diglé ñu top la waye daan nañ muñ ba bayi moy la waye bo ñu tegal ay natt timit daan nañu muñ ci feebar ak ñakkat ci aju ndax muñ ñetti xaaj la muñ ba dina sa borom sant nga def ko moom la alquran ne wastabir li xam nga ne nodd ak fajar toog a toog ba fajar ay quatre heures nga dégg nodd bu njëkk dëgg bu laajee sangu bu laajee jàpp jàpp xuusee fa dëgmal dox jëm ca am ñu dox ñu jege kilomètre ñi genn wàll mu nit mënu alal ni mu neexee nga réglé seen li war a génnee asaka fekk yaa ngi am ay milliards génnee ko war ko génnee ay millions war caa génne mu mat cinquante millions cent millions nga takk ko seet ne ko eeyoo eh, nga jox leen ko te bëggul ko la ko sant yàlla nga def ko kooku ku mu nit mënuloo kon kooku mooy sabro ala sabro an mooy ñaareel bakkan li ko yàlla tere lépp fa koo bëgg bakkan tere nañ ko mu naan sàngara mu bëgg ko rek saytaane rafetal kon da yokk sa xel da la yokk tamit kartan nga gën a fort ci jonga may mu tere la cigarette seytaane ñëw rafetal la ko ngay tux mu tere la tëdd ak jongama joo takkul seytaane ñëw rafetal la ko mu tere la alal joo xam ne moomoo ko doonte lëw na waaye lewut nga wan ko gannaaw seytaane ñëw rafetal la ko kooku ku muñut mënoo ko bay nag bi ci tegu mooy mu rek nag ci yi nga xam ne dañoo mooñaale ak moom feebar ñàkk jafe-jafe yi kooku moom moo ci gën a xoyof moom la alquran ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' danañ ci yegg si léegi kon mu lii lépp day tekki am ak dooleem léegi nak motax mu ya. ne kon ngeen ñu ray ci badar bu len len waxat ne dañu dé ñooñu dañu tuxu ñooñu dé dañu ubbi seen kër yi rek duggu mo waral seen roox ya day nekk ci xéewal ak ci mbégte comme ni nga xamé ñu texe hadiya seen roox ya day nekk ci ay mbugal kon wala taqulu bu len waxat liman ñeel nga xam ne yuqatalu def na ray len fi sabilillah ci yoonu yalla bu len waxat mukk na ñoom ahyaawun way dundu lañu bal li fi nekk ahyaa'un maanaam amwaatun bu leen waxati mukk ne ñoom amwaatun mooy dee lañ bal fi nekk ñoom ahyaa'un mooy dund lañ de walaakin li fi nekk laa tas'uruuna a xam ak yéen a yëg ñoom nañuy bi shay'in ci lëf minal xawfi ci la wal juu'i wala xiif may ne nattu leen ci beekoor wa naqsin ak wàññeeku minal amwaali ci alal lu melni defal sa alal ba yaakaar ko nit ñew dina yalla ca wala jaay ha ñew dugg ca bu fekke am bay la wala am fus dal leen natt ci wàññeeku bakkan dajale sa alal sa ñabot mu nekk fi yalla ray leen wa samaraati ak ko meññant waye ñent ñi wala juroom ñi ku ma ci natt nga muñ su baba yow yoonu to ba na nga bigal sabirina way muñ ñal alladheena mooy ñinga nga xam ne ida asabatuhum na leen musibatu natt bu mun di do qalo ñi wax ne inna naka ñun de lillaahi ñeel ñu moom lu ko neex nako na ko ci ñun wa innaa naka ñun tamit raaji'uuna way dellu lañ ilayhi jëm ca yàlla de ulaayka yooye gaa yi melokaanoo melokaanoo yooyu di wax kàddu yii alayhim ñeel na leen salawaatun ay xéewal min rabbihim gu bàyyi ko seen borom wa ak yërmande wa ulaayka yooye gaa yi ñoom al muhtadoona ñoom a di way gis nga muñ payooram ñeent la képp kuy muñ te yàlla tax salawaatullaahi dinañ ko di sottee ci yow muy xéewal yàlla kuy muñ ba tey yërmande yàlla du dañ mukk di sotteeku ci sa kaw ba ca kuy muñ yaay ki ci yoonu njub yoonu njub la ku ci teg da nga kuy muñ tamit mooy ki ànd ak yàlla mooy ki yàlla ànd ne inna laa ma as-saabiriin ki muñ tamit mooy koo xam ne bu dajeg yàlla ëllëg yàlla dana xeras di ko peeseel da koy sotti ay yiw am ne doyal naa innamaa yuwaffa as-saabiruun ajrahum bi xayri hisaab imaamu Shaafi'i yu mu ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-xawfi xawf ga mooy ragal say noon mu ne nag wal jooxi xiif ga mooy weeru koor wa naqs min al amwaali wàññeeku alal ga mooy asaka ak saraxe wàññeeku bakkan yi mooy feebar wàññeeku meññant yi mooy suñu doom yu dee yi am njaboot mu gën a àdduna ngir li yonent bi wax ci xadis ne ida maata waladu abdi qaala laahu taala li malaikati aqabattum walada abdi fa yaquluna naam fa yaqulu aqabattum samrata qalbihi fa yaquluna naam fa yaqulu laa maada qaala abdi fa yaqulu xamadaka wastarjaa fa yaqulullah ibnu li abdi baytan fi ljanna wa samawhu baytal hamdi yonentu dafa wax ne sama jaam su ma jëlee kenn ci jabootam xam ne mooy meññatu xolam danaa laaj malaaka yi ne la waaw sama jaam ba nu def mu ñu ne ko yow yàlla sant na la wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla ne kon tabaxal leen ko néeg ci aljana tuddee sant bi boo liggéey bu ñëwee ci lay dugg inna lillahi wa inna ilayhi waxee ta fekk yaa ngi moo waral kon yàlla teg ca loola te inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu la dara dalee nga wax ko te fekk yàlla rek a tax te ànd yaa ngi muñ su boobaa li nga ñàkk yàlla dina la wutal lu ko gën ku ko weddi laaj ko ummu salmata jëkkëram a génn àdduna yonent bi ñëw jaari si ko wax ko ne ko waxal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un soo ko defee yàlla dina la jox ku gën sa jëkkër ji mu ne ko danaa ko wax de ngir li ma ko digal ndax yaa gën ci yonent yi waaye nag waxuma ko ngir yaakaar ku kérok bam ko waxé def ligéyam ba ténjëm jeex yonantu bi tak ko ku nit gatt gatt xam-xam nag xam ne yonantu gën jëkkëram inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xeetu yonantu bi rek ñoko jago wa yenen iya xéet yi ñi passé won amuñ ko woon moo waraloon yonantu yalla yaquba ba mu ñaké domam yusufa lam ca teg oo sama ñakari ci yusufa ma waye waaye bu ko fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax yeneen yi amuñ ko moo tax léegi jullit lu ko nakari rek eh? loolu musiba la ci don ci dox dal ak courant a ak li ci aju yonentu toog nag bu doon léegi na courant coupé ndax sonde la mu ne ko waaw làmp bu fay sax nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne ko lépp lu naqari julli rek loolu musiba la kon lu ñu dara ci lu ñu métti si bopp ci yàlla aaya bi muy inna safa wal marwata min sha'a'irillahi boo gisee mu wàcc yéeféer yi dañ daan ajandoo ak ñun kaaba yàlla gi di wér ñoom ñu bon lañ buñ daan wër kaaba gi dañ daan rafle dañ daan wax ne suñu yëre yi ñu moyee yàlla duñ koy wëree kaaba gi def sumee ko def allah ci di wër kaaba gi dox safa ak marwa jël seeni xërëm muy isaaf ak naaji la teg bale ci safa bee ngi teg ko ca marwa yàlla nag dëggal jullit ñi ñi aj ñoom tamit nag ñu sib di baagante kaaba maanaam safa ak marwa comme ni ko yéeféer yi di ànd ak ñoom yàlla sama ndigal ngeen ko defee kon def leen ca atam juróom-ñetteel ba nag baraa a wàcc ci la yonent bi xebal Ali ibn Abi Talib mu dem jàng koo déclaré leen gannaaw ren mayetum benn xéeféer ak ci màq falaa taqrabul falaa taqrabul masjid al xaraam baada aamihim haada si lañ gëj a xaj ca atam juróom-ñeenteel ma la yonent bi xaj su ko defee nag di wër kaaba ga fekk fa ñetti téeméeri xiram ak juróom-benn fukk di jàng wa qul jaa al xaq wa zahaqa inna al baatila booba na ba bis ni ki tey dafa xiral ñu jëkk waaye jëkk loolu la ko jëkk ñaan foofu yàlla nag ne dem haji tay bagan tey bàggante marwa kom sama ndigal ngeen ko defee amu leen ci benn problème bu bu seen yoon nekk ci xiral bi moo mu ne ina safa dal safa naka safa wal marwa taag marwa ñaari doj lañ ca màkka safa moy tekki doj war a tax rek marwa tu ñu ne moy tekki doj woo xam ne wu noy la waye ku mu ci ñom ñaar ñaari doj lañ min shahairillaahi mi ngi tukkee ko ci màndargaay diine yàlla ji de fa man xajja képp koo xam ne jublu na fa man xajja képp koo xam ne sóobu na ci xaj fa man xajja ku jublu albayta néeba ngir xaj aw yaxtamara wala mu sóobu ci xomra fala junaaha déet bakkaar alayhi di ko war taw yatawafa mu baagante bihimaa ci diggante safa ak marwa de boo gisee mu wax lii jullit yi dañoo siboon di ko baagante comme li jamono jaahiliya comme ñoom nañ ko daan defee ba takk seeni xërëm aaya bi nag ci zahiru aaya bi ci la ibnu abbas dëgg ne dox safa ak marwa duhut ponk ci xaj du farata soo ko bàyyi woon ngay tuur deret rek waaye bi maanaa du yàq xaj ga ndax li mu ne falaa junaaha alayhi ji waaye ni ko siboon ñoom ñi foog ne dem di ko wër ak di ko baagal dañ cay xam bàkkaar moo tax yàlla ne falaa junaaha alayhi loolu kanam moo tax ci mazhabu maalik aj màkka ñeenti ponk moo ca am لقيتن في لتسعة tawaf الطواف سعي وقوف عرفة ñenti bo ci baye ci demen rek waye do ko mëna defal motax mu ne kon fala juna alayhi an yatawafa bihima gaay sahaba yi laaju nañu yonentu bi ko wa bu ñuy wër fu wara jëkke mar wala ñu jëkke am safa yonentu bi ibda wo bima bada ala tambale leen fi yalla tambale yalla moy lim safa la jëkke ko safa ngeen tambale wa man tatawa akip ko xamne ciobare hono xayran ci di fi yiw mooy wër kaaba ga baagante safa ak marwa ci lu duwut xaj duwut umra fa inna laa naka yàlla shaakirun aji sant la jëfam jë alimun aji xam la ko te ko nangu aaya bi na mi ngi wàcc ci yowar yu bon yi nga xam ne dañoo nëbboon melow yonent bi ngir ba na xee ñeneen féetee gannaaw ngir yëg ñu yëg ne ñooñe bu ñu xeewoo rek xewee ko ñu fekk melow yonent bi rek nëbb ko waaye aaya bi dugal na képp ku xam dëgg te boo ko waxee yaakaar ne sa ndomba wala sa daraja sippeeku nga tax nga ne ma nëbb ko dugg nga ci maanaam aaya ndax seytaane piir nga yonentu daana wax ne képp koo xam ne soo xamee dëgg nëbb ko seytaane suduu nga rek yàq rek moo tax mu ne illazina naa ñi nga xam ne yàkkatu mun a dañuy nëbbu maa la nga xam ne am sal naa wàccee nañ ko mi neen bay naati ci ay layu leer naññi wal hudaa ak njub min baax di maa bayan naa ko gannaaw bi nga xam leeral nañ ko li naa si ñeel nit ñi fil kitaab bi ca téere kutub bi maanaa kutub te tawreet ak linjiil ulaayka yooyu gaay melokaano melokaano yi fekk melow yonantu bi nëbb ko yel anuhum dana rëbbu leen mooy sori leen yërmande a way rëbb ña ku lazina na ñi nga xam ne taaboo ñoom tuub nañ baxi loola wa aslahoo ñu xewenal seen jëf wa bayyinoo ñu leeral lañu nëbboon fa ulaay ka yooye gaay atuubu man yàlla dinaa nangu tuub alayhi ci ñoom wa ana man yàlla mii atwaabu maay nangu xaa kon tuuba rahimu maa yërëm kon ca jullit ña waaye dina si daal ñi nga xam ne kafaroo ñoom weddi nañ wa ka yooye gaay alayhim dal na seen kaw laxnatullaahi rëbbam yàlla wal malaayikati ak rëbbam malaaka yi wa naasi ak nit ñi muy jullit ñi aj maxi na mboole set te ñooñu buñ fa duggé timit xal dina mi nak la seen ak bel fi haaja safara sa fi haaja mbugal ma la yu khaffafu defu ko yafal anu walis den al azab mbugalam yalla ma wala hum ngeen ñom timit yum saroona di mu ñu def len pour ñuy tuubaat wala ñuy ngantal parce que mbir ma jeex kon gis nga tuubag naa fekk mo gëna jeex jafe naa ak tuubam fokk mu tuub ku ci lu bon lam doon def réecu lu taxoon mu koy def wax na dootu ko defati muy ben motam tax na ñaareel bi mooy mu héwénal réparé lu bon lam doon def ci jëf mu fexe ba tofal ca jëf ju baax moo tax mu ne wa aslahu ba ca tegu tamit gannaaw da nga doon tuub ci ak naa fekk ci nëpp dëgg am dossier boo xam ne yaa ngeeg moom nga classé woon ko xam ne boo ko yëkkatee musiba am wa bayee noonu nga fexe ba leeral dossier bu ñetti melokaanu yi amee nag fa ulaayka atuubu alayhim loolu nag lu jafe-jafe kon bëri na ci nit ñi ñu yore melokaanu yi léeg-léeg dana dal koo xam nga dossier bi nim demee mais mu na bu yi ngir bëgg lañ ko ci wara jox problème lepp seetu yalla may client mais ma nga seet client ma ko wona défendre ba am lu ci am dana ñëw dugal ki nga xamné day atté procureur bi waaja ñëw gisee mom am lu ko dégg ci dossier ba nako boko classer rek ba def ni nangam ak nangam ci am nangam yëkëti ay million wala ay terrain manam wax loola mën na dem tamit ba ba mu ko manam ministre bi jot ca moom tamit tek ci loxo mu am lu wara lek ci moo tax ñu fi rey yëpp wala ñu dal ci seen i kaw ñu nekk ay borom yi ndomba tànk yu mag ba dossier ba xas yegg faw xam ne yegg na fa ca kaw dootu leeratu àllaaxira rek lay leeree ndax commission yi kenn ku ne lekk nga ba yegg te boo boo waxee rek musiba am nëbb googa ñuy nëbb noonu ak lañ cay lekk lépp boo lëggee safar rek la leen di dugal te boo seetee tey li gën a bëri ci li ñuy nëbb ci dëkk walla tribunal la lañ fay xàq ci yëpp fen rek ak di atté ba ci kanam ñu lañ gisé ñam ñam ñu gisé ba ci kanam ñu waat waxal atté yalla amu gisé ñepp wara na tok rek ñepp public ma nga jang aya rek xamne wasariqu wasariqatu faqatu ma leer kenn du tar fekke ñaalu la azaniyatu wasani fasdinu kul wahid min bi ata jang ma du sax ben seconde kenn ko dem ci dox ci sax waye dañ fay nek suma ba guddi ci ben dossier ñu dem ci yag ñu renvoyer nañ ko togaat ay fanaat togaat ver togaat nangam ak nangam lepp tap ci dugal rek kon lu jar a bàyyi xel aaya bi wàcc na ñoom yahudi bi ñëwee ci yonent bi ne ko waaw yow de yaa ngi woo ci genn yàlla ñun am na ñetti téeméeri yàlla ak fa soxla yi faju ndax ñoom dañoo gàttal yàlla ju ne ak soxlaay boppam yàlla ji ku bëgg jabar moom rek yàlla ji ku bëgg jëkkër moom rek yàlla ji ku bëgg tukki yàlla ji ku bëgg wér yaram yàlla ji ku bëgg maanaam sa commerce dox ba mat juróom-benn fukki yàlla ak ñett 360 tolloog 360 ci ay soxla yonent bi ne leen ngi leen di woo ci jenn yalla joo xam su ngeen ko dangulé seen soxla yi ko kenn mën ko fa ndax seen soxla ñaar la moy lu ngeen def ci lu baax pour mu dencal leen ko ak lu ngeen di dem diko wuti pour mu xalal leen yoon bu ngeen di jaar ba hekk ci te yalla yàlla ji ma leen di woo moom kenn mën leen ñoom nag ngi jommee jenn yalla naka la mëna fa fajee soxla yi ñun ñi am 360 ci ay yalla te suñ soxla yi tay la gëna tak ñu ci yonent bi ko ci yalla ñoo man melokaan la man ci yalla ko liggéey wurus lam, kalis lam, weñ gu ñuul lam përëm laam yenn xeeti matière lañ ko liggéey yàlla yonent ya, bi ne war a alquran wàcc ko tontu moo tax mu ne wax leen ne leen wa ilaahukum naka seen yàlla jamu doy may laaj mu xeeyoo jaamu doy walis lépp te dara mënta doy walis ko ilaahun yàlla la waahidun jay jenn amul ndem ci jëmm amul ndem ci mel amul ndem ci jëf amul ndend ci kon dégg nga ci ne nekkul matière yi ngeen di wax bu doon tey weñ la ay matière lañ boole mu nekk weñ bu fekkee tabax la ay matière lañ boole ndox ak ciment ak suuf ak nangam ba mu nekk tabax bi bu dee tamit bant la muy bois yeneen matière lañ boole ndox ñëw na participer si gàncax ñëw yeneen ñëw ba bant nekk di bant bu fekkoon ne nit kuñ samp la du benn ndax nit couleuram du benn boo seetee benn mu xees wala mu ñuul bu xeesoon wala mu ñuul tamit kawaram day ñëw ñuul kon bokkut ak moom benn matière bokkuñ ko loolu ay bañam ñëw weex ay siddiitam ñëw weex naka noonu tamit deret ja ñëw xonq yàpp woo ñëw ak derba yooyu benn ci nekk bokkut ak moom ko loolu ki ma leen di waral ilaahul waahid jëmm ja jenn la meloon na la xamuñ ne jëmmam ja jëmee dawaa jenn jëmm la du ay matière yu toqale xamuñ ne couleur ba mel ne benn couleur la du ay couleur yu toqale ndax uteeg doomu aadama ba lii lii dafa ñuul lii weex tuñ ma ñëw manam ñuul wala mu xonq siñ ma ñëw xonq kon yoy yëpp ay couleur yuñ toggale la doom adam doon mën a nekk doomu aadama ki ma leen di wax nag ilaahu maay rek ko doon topp deug deug la ca nekk rek mën ca fam waye li ci dess ni déglu ko déggale kat yi ñoom ñu matali ko la ilaha ilaa amul benn buur waxee yoo jaamu jaamu gay jari ñak jaamu gay lor ilaa wa dara mo arahmaanu moy ki hëmbal mbindeefam yëpp xéewal li muy bari bari jabo ilaha la dépasse bu doy nim xamee dépasse bu doy bu tay timit arahimu ni la amee dépense bu doy bu ëlëk ndax moy arahim am na dépense ab tay am dépasse ak ëlëk légui nak ñu ne ko yàlla ci nga ñuy woo takkal ko garaat yu rëy lu mu fi def andil ñu wax yu lu mu fi def bañ man xamni ko ne koo xaykal yàlla yonent bi leen lu ma juroom ñetti ne inna fi xalqi samawati nak nekk na ci bind ak juróom-ñaari asaman wal ardi ak bind ak juróom-ñaari suuf waxti la fi layli ak wute guddii wa nahaari bëccëg yi guddii dem bëccëg ñew ta xamu fu ko denc bëccëg dem guddi ñëw kenn ku ne lekk sa morom te xamoo fu mu denc sa morom mbaaral la asamaan si li muy yaatu yaatu bi laa xamaa dim taraw naxa amul kenn bu ngeen koy mën a gis tàll la la si bu la neexee taw bu la neexee taxaw bu la neexee def lépp bato maanaam lu ne di ci daw te taxul suuf konk wal fulkee gaal yi la ti nga xam ne tajiri danañu daw fil ci géej gi xool ni ndox koy fee ni gaal ak bato yi ba su ba ba ba maanaam diis di tëbb ci ndox mu oyof bi te suufuñu ñu ngi tëmb tamit bi ma ànd loo xam ne yan foo dana jariñ naas nit ñi ña ngi leen di yenu ña ngi leen dana leen jariñ ci xoyofal leen seen ak yenu loo waroon a yenu boo ko tegee ci gaal gi rek mu xoyof la dana jariñ nit ki bu amul bagage mu mu xoyofal la mu gàttal la sa yoon li nga waroon a daw ci ay waxtu moom mu yóbbul la ko ci ay minutes bi ma yan foo naas lii mu defal la ko ci ay jaww ji muy avion lii mu defal la ko ci maanaam suuf si muy ay oto ak ay métro lii maanaam mu defal la ko ci ci ndox mi muy ay gaal ak ay féeri ak ay bat wama ak la nga xam ne an sala wàcce na ko laahu yàlla mi ne samaayi ci niir yi min maayin ci taw fa ahyaa mu dundal bii ci taw boobu al arda suuf ci gàncax ba'da mawtihaa gannaaw ak deexam wa bassa mu wisaare fiihaa ci suuf min kulli daabatin ci bépp daaba ñoo ñoom nag kenn ku nekk di lekk la lay jëriñ ñax gi mbaam bëgg ak yi fas bëgg duñ benn waaye kenn ku ne ñaxamal ci suuf bii bay ak gëléem te kenn ku ci nekk tamit fa nga dëkk rek la ngay dundee moo nekk foofu yàlla rek a yàlla wa tasrifi riyaahi ak soppandiku ngelaw yi ngelaw bàyyi koo fële ci ndeyjoor jëm càmmooy tàng jir bi bàyyi koo càmmooy jëm ndeyjoor sedd kuy ngelaw lii ñëw di saxal ngelaw lii ñëw di màggal ngelaw lii ñëw di ñoral wa saxaab maanaam ak niir yi mu nekk mu saxari lu mu tàggat dara téewut ko muy daw moom niir yi ci diggante asamaan ak suuf te dara téewut motax mu nek mu tagat bayna tàggat sama ci diggante asamaan wal ardi ak suuf dara teewul bo sété nak ina fi xalxi ba fi nan ko fekk muy juróom-ñetti kaawteef kon nek na ci juróom-ñetti kaawteef yoyu la ayatin ay kaawteef yu tek la kenn ak yalla ga ak kattanam ga waaye li ko mën ñeel naw nit yàq na ñoo xam ne dañoo xel ñoo ko mën a jëriñoo ab dof mu ko jëf kon yalla rek a yàlla kon gis na yalla fi jaar ak ngelaw bo sété tay dañuy wax ne ngelaw ñaari xaaj la wal yërmande day a ah, de nga ak ngelawal mbugal ngelaw lii dana ñëw sedd ngelaw lii ñëw tamit tàng su ko defee tamit noonu lay lay da di soppandiku ci seen xeet yu wutee yaag la ca aju tabaarakallaahu ngelaw lii yàlla tàggat na ci aw xeetam jariñ leen ci lii ngelaw tamit maanaam mu mbugal ci aw xeetam loolu boo ko doon topp dana nekk loo xam ne lu bëree bëri lay doon waaye comme dañuy waaxu dafa ñu jëm fu sori la ñu continuer ci waaxu yàlla tofal ci ne wa mina naasi am na ca nit ñi man yettaxisu kuy jàpp min dooni laay ko dul yàlla jàpp ñeneen ñi àndaanak ay ndend mooy mafkol jàpp ay xiram def leen ay ndend ci yàlla te duhuñu yàlla yuhibbuunahum yoo xam ne dañ leen a bëgg di leen màggal di leen toroxlul ka xubbillaahi ni ki julli ñi niñ bëggee yàlla la xiram yi bëggee seen xir la maanaam jaamukat ak xiram yi bëggee seen xir ak ñoo dofee yàlla na defal ñu guuñaan ne wala dina ne nga xam ne amanoo gëm nañ asadu ñoo gën a tar xubban ci cofee laay ñeel yàlla julli ñi nag ñoo gën a bëgg yàlla jaamu kat a xërëm yi dañ bëggee seen xërëm yi li ko waral mooy ñay jaamu xërëm coolee fi nekk rek bu neexee rek ñaan na xërëm yi waaye bu naqaree ñoo seet si yàlla ñay jaamu yàlla nag bu neexee yàlla lay ànd ak bu naqaree yàlla lay ànd kon nag wala dina amanoo asadu xubban lillaahi kon mënuñoo nekk benn ñële bu neexee rek ñu ànd ak seen gaay bu naqaree ñu bàyyi ko te tamit lee ñuy jaamu bu naqaree nekk lu am xel danañ taxaw rëbbante ci kanam yàlla bu nekkee tamit lu amul xel danañ leen boole ñoom lañ doon jaamu rek dugal leen safara ñuy rëbbante ñun nag ki ñuy jaamu dafa ñoo bëgg ñun ñu bëgg ñoo nag la ñuy jaamu bëggul lépp bu dee ab xel xamul bëgg ak bañ su fekkee tamit nit ngay jaamu bàyyi fi yàlla su ëllëgee da ba ngeen te ñaar ñi ma ngeen ngeen di weddiyaat te jaamu ko moom jaamu ma la ba lépp jeex ñun dafa ñoo ñu kon moo tax mu ne wa mina naasi am na ci xeetu nit ñi muy ay yéeféer yi man ñoo xam ne yettaxis dañuy jàpp maanaam andaadan ay ndend min doone laay duhut yàlla yuhibbunahum di leen màggal yuhibbunahum di leen toroxlul ka xubbillahi nit ñi julit ñuy toroxlu lewe yàlla waaye wala dina ña nga xam ne amanoo gëm nañ asadu ñoo gën a tar xubban ci toroxlu lillahi ñeel yàlla ndax ñoom bu neexee bu naqaree yépp yàlla la ñuy toroxlul ñu ne nag bu neexee ñi toroxlul seen këram bu naqaree ñi bàyyi ko yàlla nag léegi di wax walaw tara boo gisoon yow yonantu bi ci nattale la dina nga xam xala moo tooñ nañ bàyyi fi yàlla bay topp ay xiram is yaraw waxtu wa ñuy jàkkaarloo alxasaaba mbugalam yàlla ma li ko de da nga gis mbir mu màgg mu xasaf ñi fi baye yalla dem di japp ay xiram bo ëllëgee bo gisé ba leen di mbugal ñoo seen xiram wallahi li ko doon kërëm nga gis mbir mu màgg muhasab ne la raayta amran aziman la ma muhasab ta su baba bo dem ma gis li da nga yëg ne anna al quwwata naka kattan ak motel li lay ñeel na yalla jami am mu mbolé mboole sedde wa an la naka yalla shadidul azabi ku tarlam mbugal ci xéefee mu andi wa boo bo ne bo ëllëgee ña doon jaamu ak lañ doon jaamu ñëpp taxaw ci kanam yàlla ñu teg yaa ma doon jaamu jaamu ne boo léegi du dañ ci moom waaye ku fi jaamu ku dul yàlla moo xam nit la malaaka la jant la xiram boo xett ko boo liggéeyee ñëpp dañuy taxaw dañ la moo tax moom badal ci nii ci la ci badal istabara waxtu waaye dañ laa wax allasina ña nga xam ne tubioo toppee foon leen muy njiit yi ñuy dañ leen defé ci nga xamne ittabaxo lo doon top lañuy surga ya waraaw fekk gis nañ am asaaba mbugalam yalla wa taqata ta taqaddana bihim walis leen baabi mana'an dagana walis leen al asbab sabab ya jokale jokkale woon sabab ak jokkale mooy topp leen ma dima magal dima fonku dima sumil seeni dal dima jëlal samay dal dima balal ay tol dima dajale ci ay kees way jubuma jubbantihuma yooyu dagana fa wa qala wax la si nga xamne ne ittabaxo ñoo doon toppee eh? bañañ doon topp da nga ci ñoom ña ngay wax di réccu ne law an lanaa doon te nekkoon a ñeexal ñu karatan ak dellu ci àdduna ak ay yàllanti woon ñu mën a dellu ci àdduna su boobaa nekkoon fana tabaraw danañu dañ minhum te ñoom ñi ñi doon topp kama tabaraw comme nañu dañee min naa ci ñun yàlla ne jeex na kazalika naka noonu maanaam bañ bisee maanaam mbugal mu tar mi te ka doon daña kañu dañ ñëpp xam ne mënuñ cee mucc yuréem na leen wane laahu yàlla amaalum seen jëf yu bon ya xasaraatin mbir mu ñuy way réccu àllayhim ci seen ci ñoom waaye wamaawum dem ñoom bi xaar jëni yow ay génn min naa gi sax ki muuse woon bay naxe ak ki yàlla joxoon xel mu nekk lu ëpp valeur ci lu yàlla maye mu dofee sànq xelam bañ koy nax yàlla na yéen ñaar ñëpp ci safara kenn du kenn du mu ci kon nag yàlla bëgg nañu at mi mu teel ñoo xamal lim ñuy laaj ki lay ki lay ki lay examen ne kaay ma wax la noot yi bala ngaa dem ci bala ngaa dem ci place examen bi kooku bëgg na nga nga kon nag li ñuy fakkatal ci yoon bi yépp ñuy naxe ci ay ndëgg sërëx yi yàlla wax nañu leen nañ xam dañ ci ñoom balaa yowmal xiyaam ñu taxaw ci seen kanam ñu dañ ci ñun ñu nekk ñoo xam ne dañuy perte te su bii mu tofal ci ne yaa ayyuhan lazina yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi ñaareel bu ko wax waaye mi ngi ci namoon xam ne dañoo araamaloon ci seen biir ay xeeti jëleem ñu muy sawaaib yi bahiratu wasilatu xaam benn bu ci nekk danaa la wax mooy ban bu ñu demee ba ca fi ko yàlla tuddee yax bi ci alquran ne yaa ayyuhan naas yéen yéefari Màkka yi ku loo lekk leen mi maa fi ar nekk ci suuf xalaalan mbir muy aji dagan tayiban di aji teey waaye wala tabixo bu leen topp xutuwaati seytaani yoonu seytaani innahu naka moom seytaani adduwun noon la mu birin di aji biral ak noon lakum ñeexal leen te moom seytaani innama yaamurukum daal dana mu digal leen bi suu'i ci bàkkaar wal faxshaayi ak ñaawteef wa an taqulu ak ngeen di wax alallaahi waral yàlla maa laa taxlamuuna loo xam ne xamu leen ca dara wa idaa qila ne waxeef na lahum ñeexal leen ñoom xéefér yi ne ittabioo topp leen daganal lek lekk lim daganal li mu xaraamal ngeen baxi ko xaaloo ñoom bal li fi nekk ñun kay na tabixu dañuy topp ma al fay naa la ñu ci moom aba naa suñ rek ci ay xiram ak ci ibi ak baxa iri yàlla nag ne ah ndax ñoom dañuy topp seen bàyya walaaw kaan doonte nekk nag aba wom seen bàyya laa yaxtiloona duñu xelu xamuñu woon say am dara wala yaxtiloon te du gindeekuñu woon damay topp sa bàyyi te sa bàyyi topp topp da ngay perte booy topp sa bàyyi na fekk muy ko topp waaye ko problème la dafa amoon gëléem bu ñu tuddee baxiratu wasilatu xaam baxiratu mooy gëléem bu ñu nisar soow ma ñu jox ko seen xër ñu nisar ko jox ko xiram ya maanaam daal mën nañu lekk yàpp waaye soow moom duñ ko lekk wasilatu gëléem bu ndaw goo xam ne dafa taawloo doom ju jigéen dafa laajte doom ju jigéen ñu ne kon loolu xiram ya ko moom ñun duñ ko lekk te kenn du ko sëf duñ lekk yàpp wa duñ naan soow ba xaam kuy lay doon moo xam ne manam dañ ko tëraloon rek ci yew ko muy tepp seeni i jëlëm yi ñu ñu tëral ko tërëm yi kenn du ci war kenn du ko jariñoo li daya fekkoon yonent bi ñu koy xaraamal yonent bi ne kay leen ma wax leen li yalla xaraamal ngeen bayyi da xam ne daga na dara neeku ci da ngeen dem di ko ñu jël li jox ko seen xel bi loolu nag ci la ak dofee bi waye nak léegi dana ci tofal seen ñàkk jënd bu leen waxe ñu suñu bayyi rek la ñuy seen bayyi ñu top top